soxna kii di président bu France di Emmanuel Macron wala coro lu ci mën di doon am na kàddu yum yebbi ci Kylian Mbappé entraînement bu Real Madrid bu xumbuta dagan Nicolas Jackson Jackson mu sensé coiffure ndax dañ koy topp ci information yu wér te wër gaa yi kàddu gi Alaaji Malick ma ziar leen bégg leen ànd beeg ñun am na solo yàlla na jëm kanam ci information yu wér te wër yi nga xam ne yéen ko fi taataane baneen bi ma bégg leen sàkko ci yow mii di ma saataan loolee dama la koy ñaan rek xam naa ne bu la neexee abonnement bi nga coppati ko ndànk gaa ñi ànd ak moom ñu ndogu ci jàmm ak salaam ñaanal réew mi jàmm président Ousmane Sonko yàlla na jàmmam yàgg président Diomaye yàlla na jàmmam yàgg ba yan bi mën a euh, oyof ci kawam kii di président Macky Sall ma dem mu gundaandaat moom it ci jàmm fa mu ne nekk tawféex ci moom information yooyu nga xon Birigette wala euh, ki nga xam ne mooy Birigit Macron moom moomee ci Kylian Mbappé daanaka rek bi mu jàkkaarloo goney BFM euh, TV BFM TV nag ñi ko xamul ab euh, télévision la bu mag a mag boo xam ne daanaka day yëngu ci wàllu politique ak xeet yooyee nga xam ne daanaka moom BFM TV sax ñi ko xamul moo jur li nga xam ne mooy télévision bii di RMC Sport bi ngeen di gis. mooy daa jëm dàbbar ñi li la di ligue des champions ñoom Europa kon xam ngeen ne télévision boobee du ndaw du bu ndaw la mu xam le nag moom mii li nga xam ne daanaka mooy jànqub ki nga xam ne moo nekk Emmanuel Macron Kylian Mbappé concernant li nga xam ne moo ko soxal ci participation wala waaw ci jeu bi nga xam ni moom la ñu dëgmal loolee nag la mu ca xam ne ci kàddu mooy ak lu mën di am ak lu mën di teg ci taabal ji Kylian Mbappé Mbappé merci merci merci loolee mooy kàddu yi nga xam ne yëkkati ko la mu ca taftal nag bëriwul ndax loolee yaakaar naa ni ay wax ju neex la joo xam ne Kylian Mbappé dana tax mu gën a xam ni moom moomee respecté nañ ko ci réewum France loolee daanaka tubaab lu gën a bari ci ay waxam ay jeu de moo lay doon coiffure bu bees bu dégg jàmm but yu bees kii kii di Nicolas Jackson Jackson euh, kii nga xam ni mooy international sénégalais bi football ci Chelsea loolee la teg ci taabal ji loolee nag nekk mbégte ci moom loolee nag ñu ñaanal ko mu nekk ci yëba moo xam ni bu soobee yàlla dana gën a mën a am taxawaay bu yaatoo yaatu ci équipe bi la nga xam ni mooy euh, Chelsea ga nga xam ne daanaka ma nga fay daagu te am fa solo lool nag ñu bëgg nag mu dugal ay bit yu bëree bëri euh, ci li nga xam ne mooy boo bee club nekk fële ca Angleterre di club boo xam ne ñoom ay mooy yu bula la ñu sol Bellingham seetlu naa ko ci tàggatu gi nga xam ne am na ko oyof na toll fàttali na nag Real Madrid yéen ñii di ma topp daanaka ma ngay waajal match bu mag a mag digganteem Manchester City mu nar a nekk juróom-ñeenti fan ci weeru avril match boobee nag dana am solo bu baax a baax ci wàllu Ligue des Champions ndax match aller la boo xam ne Real Madrid coûte que coûte ak nu man di def war naa wut yeetu woo xam ne wu sew la bu fekkente ne daanaka aw wajan la yor mu yor li nga xam ne moo nekk aw naaru góor karawaas ganay dal bu ko defee bit ya mën a bari ci boobee match aller ndax bu ñu dellusiwaatee ñu mën a am match boo xam ne ñoom goney merengue yi match sedd lay doon ci ñoom match boo xam ne dana neex a ndax di fàttali ne équipe bi la di Real Madrid ak yéen may seetaan supporter am euh, City moo mujj ci seen kaw ci wàllu Ligue des champions tey nag wuute gi bari na lool ndax siti jàpp naa ni guddi yu tool am na doole waaye nag équipe bi nga xam ne Rodrigo fa lay football ak ki nga xam ne euh, moo nekk Edouard Camavinga ak kii la di Toni Kroos Luka Modric euh, Tchouaméni Choupo-Moting Bellingham ak kile la nga xam ni mooy Vinicius Junior Rodrigo Goes ak kii di soos bi Sosolo Fernand Mendy ak ki nga xam ni euh, moo nekk kile di Antonio euh, Rudiger Carvajal ak Nacho Fernandes ak góol ba li di Lyon ak ki nga xam ne euh, moo nekk kile di gardien bu mag boobee di fa góolu ñu mën koo wax kii boo Courtois entraîneur ba di kii di Carlo Ancelotti David Ancelotti di doom ja président ba di kile di ki nga xam ne mooy folorantino en presse ñoom ñooy ñëpp bu ñu leen boolee ak ñi ma fàtte ñoo war a dajeeg siti goo xam ne daanaka fi mu toll nii nege nege la def bu fekkonte ne tiga dege la gars yi nañ ko wale wal ba jaaru yoon kon merengue yi ñu am yaakaar ci ñoom bu baax a baax kii di seenu président tamit am ci ñoom yaakaar waaye préparation bi ñu préparé mucc na ayib jaar na yoon dal la dañ na xel ci loolu nga xam ni programme la bu mucc ayib ma doxe foofee santaat leen gërëm leen di wax ndogu leen si jàmm ak salaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu